ñun ñëpp moo nu sàkk indi ñu fi di jël kenn par kenn kii fi jóge tey nag seede ci moom lu yomb la ndax defe naa man bokk naa ci ñi nga xam ne war naa koo xam ndax moo ma jàngal jamono yi ñu fi nekkee di fi jàng ci si njiit mii ak leen ji boobu booba kër gi soxnaam sax nekku fi ñun ñoo fi nekkoon ak moom waaye liñ mën a seede ci moom te muy dëgg mooy natt yi ñuy natt nit ku baax àndaar joo ko natt rek mu fees ko dell sàmmoonte di jullit bu wér boo xamante ne lam doon doxe ci rafet njot ci diggante ma ku ne lum tegut bëtam lum nuuru nuur lu ñaaw da koy rafetal kon loolu mooy xàq mooy dëgg dëgg sariya jaamu yàlla gii nga xamante moom la taxoon ba ba mu juddee rek noonu la ñëwaale waaw waaye man nag li ma gën a marqué ci moom dëgg dëgg mooy man sama nattuwaay mooy ak taalibe te li ma xam ci moom jik taalibe ñeme na addiya lool ñeme liggéey yóbbu teg Sëñ Tuubaa fi ko suñ boroom teg waaw kon man nga ne bu fekkente ne ni man ngaa seeri ci moom mooy ab jullit bu wér a ngi noonu bu matal xàqi jullit ci digganteem ak boromam lenn lu ñuy tere bu masa teg ne gis naa ko mu def ko nit teg ca bët amut lépp luñ digle ma ngi ca doon def ba def ca loo xamante da ngay xam ne lii sax ak xir la waaye du la man waaw bu dee digganteem ak sëriñ bi fépp fu mu dégg ku baax ci yoon wi ku am yaakaaru addiyaa ma ngi fay dem ma ngi koy toppatoo yoon xalkoom ci sëriñ Saliou njëkk a woote man ak moom ñoo bokkoon wenn waar bi ma ñëwee dama ne ko tee ngaa jël oto bi dem di lijjanti bàyyi may jiite mbooloo mi goor gor mu ne ma déedéet sëriñ xam nga ne loolu man mënuma ko yow yaa ko man dama di lijjanti lu ñuy lekk ak lu ñuy naan te mën nga bàyyi ma jiite mbooloo mi waaye su xëyee suba ba julli suba ba noppi xeppam lu yor di gor balaa toog julli tisbaar daa bu sëlmalee tisbaar jógaat balaa toog day julli takkusaan bu julli takkusaan jógaat balaa toog timis daa jot fu ñu timis fekk fa lañ ko fa la ñuy fanaan waaw mujj na taalib yi nga xam ñoo ànd dañ naan ku bëgg a noppalu bu jege si Abdourahmane waaw ndax bu jullee suba ma nga fa ba tisbaar bu jullee tisbaar ma nga fa ba timis ñu am fa fukki fan ak ñett kon loolu ak taalibe la te yor yor ab liggéey jumtukaayam di di gor man bu doon maanaam damay taxaw di soññi nit ñi waaye moom daa yor xeppam ànd ak nit ñi di di gor waaw mm, kon daal xanaa di ñaan suñu borom tabaaraka ko taala rek la nga xamante ne moom la wuti adduna ba taxoon ak coono yi mu fi nekkoon suñu borom fay ko ci la kaw njot defe naa bu tasee borom daaru mu bu tasee Seexul Xadiim mi nga xam ne moom rek la gëmoon te ñun lépp mooy suñu yaakaar tey ëllëg duus waaw kon nag ñuy ñaan suñu borom taas ñu ci barkeem te taas yi ñëpp de xam ne nag roy téef la waaw jamono yàqu na yàqu gi mu yàqu nag bu mu tax kenn baissé les waaw nañ xam ne kenn ku nekk am nga foo war a féete lislaam mu am mu la war a jaral am nga war a war a féete yoon wi mu am lum la jaral moom may nag loolee xamoon na ko waaw ba tax na ci la doon xëy ci gon li mu xamal li mu xam ci ay doomu aadama te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na ki gën ci yéen mooy ki xam alxuraan di ko xam na waaw kon man nga ne moom ci ñi gën a baax la bokk boole koog nag li ñuy tënke muy taalibe gi nga xam ne man mooy sama nattuwaay fam seemoon néewaane ko ko romb kon nag ñu ngi koy ñaanal suñu borom tabaraka wala yàlla mi nga xam ne mooy nangu te jëf yi lu mu lu mu rafet rafet ci nangoom rek lay amee solo yàlla na ko suñu borom nangul te nangul